pénitentiaire xaaru lu yàgg ngir rek tontu mouvement wu FRAPP lu jëm ci maltraitance prisonnier foofe ca Rebeuss ci communiqué bi ñu fësaloon FRAPP France dégage daldi na xam ne ni que ab prisonnier bu tudd Cheikh Thiam mi nekk foofe chambre 10 benn ba gaañ ko ci lex mu nekk li mouvement bi di ñaawlu te nag di ci woo défenseur ak ak yelleefu doomu aadama yi mu nekk ay tuuma yi nga xamante ne administration pénitentiaire daldi na di ci setal ñu fësal direction général générale bi daal di xam ne ni que naam xeex dox na diggante bile détenu ak benn agent pénitentiaire samedi 23 septembre waaye nag nemmeekuwuñ ci benn gaañu gaañu comme ni ko ñenn ñi xamle maanaam garde bi def ko daal di dóor ab matarak loolu lépp daal di nañ ko weddi te nag administration pénitentiaire daal di xam ne ni que jamono ji ubbi nañ ab l'enquête ngir rek élucider bile incident te nag ñoo ngay dalal xelu opinion publique bi si lépp lu jëm si protection des détenus ak respect seen ak seen yelleef te nag ñu ngay woo ni ñi ñu vérifier bu baax xibaar yi ñuy joxe laata ñuy teg yile tuuma ci seeni ndodd